Assalamualaikum boku internet Ibakan TV hmm. tay nak dañu séti ancienne gloire ancien champion d'Afrique l'ambassadeur de pikin le monument de pikin hmm. lepp pikin moy baye pikin nigaay pikin lepp pikin moy hmm. euh, sunu doyen elage pap Pape Diop ñu koy tuddé elage pap Pape Diop <laughs> tay nak ñu sét ci ko euh, di ko laaj yaram bi ndax mu ngi am tan bu baax bëgg waxtaan ak mom si combat Boy Niang bi nga xamné jogé na si am ndam ak Balla Gaye 2 ak yi nga xam ne eh, bëgg nañ waxtaan ak moom daal waxtaan bu yaatu. Hmm. ak Diop nuyu naa la bu baax a baax naka yaram mbaa yaa ngi am. tan ah, bu baax a baax Iba maa ngi lay nuyu di la fay. di la fay di la sargal bu baax a baax di la souhaiter meilleurs vœux ci année bu bees bi. Hmm. ñun ñëpp yàlla nañu yàlla defal jàmm yónnee ñu yaa salaam. Hmm. ci barke rasulillah yi. Eh, àddina loolu rek moo ci nekk. Eh, lépp loo xam ni bopp bi romb na la rek. booy woo nga séntu geen ba xam ni mi ngi ñëw mhm. kon yàlla ñu yàlla yónnee jàmm euh, may wax rek ni euh, li nga xam ne lii yaa ngi ma ko ñëw di ma ko laaj mhm. euh, yàgg nga ma ko laaj mhm. du tey ndax yow maa ngi yow yàgg nañu kon ni am naa yaakaar ci ni bu fekkee làmb rek la waaw am naa yaakaar ni ancien gloire laa ñaari yoon sur le plan national ak sur le plan international. boo déggee man la sur le plan national. Mm-hmm. c'est parce que maa daje woon ak Mbaye Guèye. Mm-hmm. dajeeg Robert dajeeg Double Less dajeeg Moussa Diame dajeeg Boy Bambara dajeeg Ibou Senghor dajeeg Papa Kane dajeeg Mor Nguer dajeeg Manga dajeeg docteur Faye ci Louga Samba Diaw Souleymane Diaw Ousmane Ngom Madiaw Ndiaye booy remarque ne c'était que cela rek ñooñu yëpp booy pambal ñii am nañ bëri na ma ak ñu am ñaari yoon ñii bëri na ma ñoom ñetti yoon kon li wóor te leer mooy foofu sur le plan national ancien gloire la su ma demee nag sur le plan international bul fàtte ni diggante Yougoslavie ak Bulgarie ak Roumanie en Yougoslavie yaakaar naa ni jël naa fa médaille d'or ci dëkk bu naan Skopje te foofu bëre boobu diwlin lañ lay diw ba nga tooy xëpp jox la ngemb der nga sol ma yaakaar ni euh, foofa boo fa demee ba jël fa médaille d'or wëlbatiku def ñetti jeux olympiques Munich 72 Montréal 76 Moscou 80 te bu ci nekk 4 ans fay jaar ma ñëw nag sur le plan africain jël médaille d'or ba ci Algérie première médaille d'or di attaqué deuxième médaille d'or sama tànk péroné bi damm ñu plâtré ma may euh, ñaanal Double Less de passage moo ma doon ndey ndeysaan di ma yëkkati ak platre bi kon yàlla na ko yàlla jégal moom itam ma jël médaille d'or ba en 1974 ñëw Égypte deux ans après jël médaille d'or ba ak argent ba ca dëkk ba ñu naan Alexandrie cinq cent kilomètres de Caire jógeti fa ñëw ak Casablanca au Maroc jël médaille de bronze bi su musuma génne les trois premiers kon am naa yaakaar ni sur le plan international itam doon naa fa euh, ancien gloire ñu dem euh, en France à Toulon ma def fa exhibition ñu jox ma médaille ma jóge fa ñëw Italie ñu def ma fa directeur technique defaral ma carte d'identité nationale pour faciliter samay retour ak di seet équipe ya fa ne kon yaakaar naa ni mën naa laa wax dara ci làmb yi ba. jërëjëf naka ah. yaram bi léegi. yaram bi maa ngi am tan bu eh, baax a baax. fa tubaarkalla maa ngi sant yàlla. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. maa ngi sant yàlla ndax euh, yàlla ba mu bindee feebar mm-hmm. dafa bind wér mm-hmm. tey it nattu la boo xam ne rek bu la ko yàlla tegee alors da ngay koy xam ne rek moom mi la ko teg moo koy teggi ndax ña dem jiitu dafa ñu lu tax yàlla yóbbu leen ñu ñi mu fi bàyyi dafa la yàlla lu tax mu téye nu fi kon ak ko matal rek dem lépp a ngi aaj ci mbiri yàlla wax dëgg yàlla maa ngi sant bu baax di leen gërëm bu baax di ñaanal réew mépp jàmm ci barke Mohamed Rasulullaay ndax su ma daan dem àddal à l'étranger euh, chrétiens yeeg jullit yëpp laa demal parce que ñoo bokk réew mi li wërtalee nag maa ngi nuyu le président de la république Macky Sall ak son épouse di nuyu Youssou Ndour di nuyu le maire Timbo ak euh, Salam ñoom ñëpp maa leen nuyu ay Moustapha Ndiaye di nuyu dénk le président des mareyeurs ma kii Mbeng Thierno Mbeng di nuyu gars yëpp daal ku dangay da ngay juum. Euh, le premier janvier seetaan nga combat Balla booy Niang. waaw le premier janvier seetaan naa combat Balla Boy Niang. waaw nan nga jàngatee komba ni ma jàngatee combat ba mooy. Uh-huh. Euh, toujours amoon naa yaakaar ci ne rek Balla euh, Boy Niang da koy daan. foo ko yaakaar na foo ko teg waaw parce que dama dafa am toujours faiblesse bu nekk ci Balla. boo jiitee le pied droit pour mu daan la day day sonn. day sonn boo fattee gos ba rek hmm. mu am problème ah, ah, ah. bu fekkee ni bii nag fexee na ba féete la ci côté gos ba nga ne ci digg bi bu la jëlee man na la daan kon bal daa am faiblesse waaw am na waaw bien sur amul benn mbër bu amul faiblesse hmm. ba ci man mi toog kon yéen da ngeen étudier Balla Gaye de yéen wooy étudier nañ ko parce que li wóote leer mooy Balla bi ko Eumeu Sène di Eumeu Sène di daan ñaari yoon hmm. bul fàtte ni nag noo ànd yéen ànd dëgg la ah bul fàtte loolu ama seen droitier la booy ña ngi di droitier mu ñëw mm-hmm. damay dañu koy wax les les les mêmes parce que fii la toog ma ne ko la ma la digaloon euh, ca mbër des kamu jëkkoon a bëreel tafaati wala déedéet de lag de ma ne ko la la waxoon ca lag de boo ko defoon mm-hmm. kon wax ji du coow li du bari la ma waxoon kon lag de comme lii ma ko wax ci Balla Gaye rek waaw côté euh, la droitier nga. Hmm. fermel côté gauche bi attaqué ñëw ci koom. Hmm. wala nga xaar ko bu bu ñëwee boo ko jàppee. Hmm. mën nga koo daan jël bu gaaw. mais dafa am sikki sàkk ci Lac de mais li wóote leer mooy képp koo xam ni kii yaa ngi jiital pied gauche booy ñang di bëre yow jiital droite fatt sa gauche. bu la jàppee dalay lay daan. bu la waaw parce que xool ko ci euh, rakk ja Sa xool ko ci rek ni mu demee léegi arbitre ñu léwatoo lu yàgg taxaw waaw. après balle mep jëli. waaw. songu balle gay bi lo waaw c'est parce que dañu li ma ko xamaloon hmm. il faut que dégg nga ko bu ñeu sacrifier bëri bi. pour sacrifier bëri bi waaw bu sacrifier bëri bi. Hmm. bo ñëwee jital sa ndey jor bi. waaw fattal gauche bi. balle ne peut pas attendre. balle ne peut pas bo faté gauche bi. Hmm. balle du xaar. balle du xaar. bu fekkene bi léewta na quelque temps rek. bo taxawé rek. mom dina la fekk si. parce que xamal ni Balla la mu daan def di daan gaa yi. Uh-huh. mais def na ko def na ko Boy Niang. Uh-huh. jël tànk bi coppati ko kepp. Uh-huh. jël loxo ba loxo càmmoñ ba sentiré ko ca ndigg la. waaw biij ko mm-hmm. mais Boy Niang toogul. parce que Boy Niang a bien entraîné euh, dafa entraîné ay tànkam. waaw te Balla Gaye entraîné ay tànkam. Balla entraîné wul wul entraînement ba ca war. Mm. Balla entraîné wu ko. te waxoon naa ci Bombardier ne ko bu fekkee ni bi nii nga nar a continuer. vaut mieux nga teel a bàyyi làmb ji yàlla may na la teraanga làmb xam nga làmb day dem foo xam ne fii bu la ci yàlla joxe teraanga entraînement yi war ci yow dootoo ko def surtout nga am soxna di jaboot ala dénk ko teraanga yàlla dénk la ko hmm. entraînement ba waroon ci yow dootoo ko def ku gis Balla xam ne entraînement ba waroon ci moom hmm. defatu ko hmm. mënatu ko parce que làmb mooy demee noonu xam nga làmb mu ngi mel ni pooru Ndakaaru bata dem Batokose mhm. te it Balla la mu daan def ay magam rek. waaw la ko ay rakam fay. mais Balla ci bit tànk bi te mënu mënu si dara lu tax. c'est parce que parce que amatul puissance bu mu ko àggalee. ba mu jëlee tànk bi. Uh-huh. amul puissance parce que Balla. Uh-huh. làmb ji lépp mi ngi ko wéeroon ci mystique. Oh, dëgg boo xoolee mystique uh-huh. nga xam ni ci mystique la ko wéeroon. te kële it ñëw ak is mystique. ba pare doon xale euh, di rakam. ëpp ko ëpp ka kàttan uh-huh. parce que ni ñu bëre boo xoolee xam ni uh-huh. booy ña nga ëpp kàttan uh-huh. jël tànk nit mu bàyyi laak tànk ba yor ñaari loxoom di kalkali ca kaw kooko xam nga ni euh, ñaan la ak kàttan mais rotation extérieure bi booy ñaa def loolu xalaat sa xalaat la waaw mais xam nga yooyu itam defe naa ni man je suis un professeur de la lutte dëgg la boo gisee ñi ma la limal fii ñëpp. ak ñi ma la rotation extérieure boobu lan la. rotation extérieure boobu. waaw kooku mouvement d' ensemble la. mouvement d' ensemble la. parce que heure bu ñu coppatee tànk bi. waaw da koy jël kal ko ci uh-huh. kaw. bu ko calé ci kaw bu ko délocé rotation lay don bala day day dal di top action ba. mu délu ci wéru ko. mu fété souf bu ko wé bu ko wéro uh-huh. day dal di jëlee tank ba ci dess pousse ko dënn bi Balla Gaye day jaaxaan. cey yàlla tiyaaf yi. Uh-huh. moo euh, may wax rek Balla ni mais kon Boy ña Niang kat la dé non Boy ñang amul xalé bu ko dakh bëri ci lamb ji yow parce que da nga xamni Sa Thiès ku ko dakh bëri ci lamb ji. gisuma amul. Mhm. mais ku daan te Boy Niang xoolal ñi mu daan ñëpp. Mhm. ñi mu daan ñëpp bëri la leen daane. dëgg la Boy Niang à l'âge de dix onze ans douze ans. Mhm. la ñëw ci biir sama salle. papaam nekk deuxième entraîneur u Baba Diallo. waaw mu ay ànd ak Mansour. ñu doon ay xale ma coiffé leen. di ànd ak ñoom ba sama doom Ndiaga Diop. ñëw di bëri si. comme ñoom kon yaakaar naa ni Boy Niang ku dul kii sax mën na ko daan effectivement. su ma doon yéen sax da ngeen di nekk ba mu bëree ak Modou Lo. ba Boy Niang bëri ak Modou Lo. bés bu Boy Niang bëree woon ak Modou Lo. ci ngay génn ci euh, Boy Niang. ci ngay génn ci Boy Niang. waaw parce que kon Boy Niang waneegul dara. waneegul dara. ndax Boy Niang. Boy Boy Boy Niang. waaw dafa non seulement euh, bëre bi sax mais dafa am ñaanu wayjur. Mhm. ku fonk ay wayjuram. dëgg la ndax nit mais noo gisee Balla ëllëgu Balla si làmb. ëllëgu Balla mooy li ma koy conseillé. Je sais naa ne entraînement yi waroon ci mhm. à l'heure actuelle. Mhm. gaw ma detti na ko man. Ah. lii ëllëgam daal mooy. Mhm. dese na combat mag Eumeu Sène li ma koy conseillé. bu me ba na dem parce que ndab kenn du ko njëdd. bu ba pare. na bàyyi. na bàyyi waaw. bu la ko da teyit ndax kenn du ko ñëdd xanaa kon na nga bëgg wax Balla dafa jeexal Balla à actuelle ah. li mu desee ah. bareetul ah. li mu desee waaw bareetul ndax xam naa mbër muy entraîné ak mbër mu dul entraîné te entraînement ba war ci Balla dëgg dootu ko def vaut mieux que bu bëree ama seen ba pare mu dem liggéey jël jël alalam liggéey leneen jiital ay rakam loolu moo ko desee. ci làmb ji ne mën na au sommet. non non non li wóote leer mooy xam nga au sommet dafa am entre ay entraînement intensif. Mm-hmm. que l'on peut gagner ce combat. Mm-hmm. te entraînement intensif yooyu. waaw Balla dootu ko def. man maa la ko wax. Mm-hmm. donc kon li wóote leer mooy. Euh, bu bëree Eumeu Sène le conseil que je lui donne. Uh-huh. bu mu ñëdd ndab parce que balle victoire yi mu am ci lamb uh-huh. ak teraanga yi mu am ci lamb

mais soo amoon bon conseil. Uh-huh. man lépp def lépp mag ñi dañ koy aaye. Uh-huh. ndax wax baaxul. Uh-huh. ndax ñu ngay calculer lañu ko fay buñ ko ko fayee ñeenti yoon yàlla ñu yàlla musal ci cat. cat baaxul. donc kon bu fekkee ni bi ñëw na. def lu mel noonu jël ay ténor yu mel noonu mënta rangale ñëpp daan leen c'est pas possible. c'est pas possible rëcc na ci mel num Gris Bordeaux te Gris Bordeaux yàllaa ko fi defal sutura mu bëre bëre mbër mu mag mais recevoir na fa coup boo xam ne bi bu ko biri Gris xooloon dëgg du du du daan Gris ndax kër coup ba mu fa recevoir Balla ma ni mm. képp kuy nitam na ko wax ne ko tubaarkàlla macha allah kenn mënatu wax làmb te tuddoo ko mm. kenn mënatu jëf ci làmb te tuddoo ko le fils de Double boobu mm. li ma gis ci moom gis gisaat gis yoon ko ci moom mooy li mu def ci làmb benn moroomam mënatu ko def na mu def ni ku ko gis presque bëre boobu noonu la ko Boy Niang daane Boy Niang da ko daan ba ba yëg ci koom toog ko noonu la defoon magam ni kon xam lu wër sa leer mooy à l'heure actuelle képp kuy ànd ak moom te di ko wax dëgg man Pape Diop laa wax en tant que champion d'Afrique daan bëreendoo ak bàyyam ànd ak baayam ma gis te baayam euh, li nga xam ni def na ko ci làmb am na lu mu ci def moom ba ñëpp xam ko kon je conseil conseille na dem bu bëree Eumeu Sène ba pare na delluwaat ba na bàyyi làmb ji jël alalam liggéeyi leneen mm-hmm. wala muy tëgg làmb wala muy def la mais xam nga 37 ans ah. làmb boo gaañoo mm-hmm. bokkatoo ci kon dafa gaañu boo néewee doole mm-hmm. bokkatoo ci. waaw gisuma làmb jim ñaari làmb yi mu fi bëri yëpp amul bu mu ci déclaré wul blessure. waaw loolu bëri na temps xam nga mhm. bëri na. bëri loolu yi dafa am yaram yaram boo xam ni dafa am lu muy laaj. Mhm. parce que entraînement ba muy laaj. Mhm. bu fekkee ne defatu ko mooy waral blessure yooyu. kàttan ba mu waroon a am dootu ko am donc kon man dama ne la. Balla Gaye 30 nangam du daara mbër a ngi war a toll ci 40 ans sax di bëri. waaye à l'heure actuelle protéines yi protéines yeeg bëgg-bëgg jamono yeeg toogaay yeeg kalan-kalangi jamono ji ci xale bu am wërsëg ki làmb yi ci bari dootu ko def donc kon li je ce que je lui conseille mhm. na dem bu bëreeg ama seen ba pare mhm. na bam bàyyi làmb ji mhm. te xam champion mais est-ce que bu boobaa il ne va pas quitter par la petite porte ak li mu def non à l'heure actuelle mais rien ne nous prouve que ama seen da koy daanaat hmm. il y aussi. parce que bu fekkee ne bii rawance bi mu jël si ci rakam Sa Thiès. Boy Niang daan Sa mu ñëw jëlee ko revanche bu fekkee ni bi état bii lay jëlee ji lay bëree jëkk ama seen. d' ma ci combat boobu. d' accord non. kon war a delloo avance bi xanaa kon. non da koy na na kon na dem entraîner ji. Mhm. na dem entraîner ji pour dégg ko. Mhm. am victoire. Mhm. te ama seen di s'entraîne bien. ama seen it a ngi entraîné parce que du toog di ko xool. il faut que mu dem entraîné ji. Mm-hmm. pour jéem a génn par la grande porte. mais lii ma gis bu ko continuer itam. Mm-hmm. bu rek ama seen du gis dara. mun mun na daan ama seen. ah si mën na daan ama seen. Mm. dégg nga man la bu entraîné. bu entraîné mën na daan ku dul ama seen. Mm. mais est ce que entraînement boobu mu war a mën a daane ama seen amati na ko. Mm. est ce que deeti na ko def. c' est ça le problème. parce que jaar naa ci ba jàll. Hmm. xanaa gisoo ñi ma la fi limal yëpp. mais mais cumukaay Balla Gaye de keroog noo gisee mystique bi combat bu commencé. vingt deux heures dégg xam nga nee naa la ci mystique la tëraloon combat bi. waaw Balla ci mystique la tëral combat bi. Boy Niang tamit ci mystique. exactement mais dafa am lu ko Boy Niang rawee. Boy Niang lan la ko rawee. li mu ko rawee mooy kàttan doole. doole bi ci des it am na feneen fu mu ko rawee. Mhm. parce que làmb ji ñii dañu naan na guddee. bu guddee yaa ko moom. Mhm. naan bu fekkee guddeewul yaa moom làmb ji. Mhm. c'est ça le problème. c'est ça le problème. bu y a bu guddee. y a làmb bu ni yow diw Il mais qu'est-ce que nous dit que Boy avons dañ ni bu à c'est ça le problème. c'est ça le problème ci mbër mu leen moytuwul. Hmm. dinañu couper sa xaalis dañ lay suspendre ay 6 mois. Hmm, loolu dégg naa ko ci làmb ji. Ah. te làmb ji 12 mois la. Hmm. mbër mu ci dof dof bañ sa suspendre la 6 mois. say morom li ci des ñu jël ko weer yooyu bëre ko. mais boo ko defee ñaareen bàyyi làmb ji. ëllëgu booy ñaa. ëllëgu booy ñaa euh, ëllëg bu rafet la. su fekkee nii ma ko gisee. muy ñëw di jël suñuy conseil dégg kon ñëw na fi. ah waaw ñëw na fi. waaw. ndax bi ñu mujjee gisee. Mhm. dama ko ni jarul sax ñu gisee. booba ma nga saal ba Pikine mbooloo. waaw booba pressé ko fa fekk muy waxtaan ak ñoom mais dama la wax ne la bi ñu mujjee fii maa moom. Mhm. xamal naa ko ni li ma óotaleen ma li ci yow ak bëri bi ci yow boo liggéeyee force defar sa mystique boo boo jàppee Balla Gaye da nga koy daan. drapeau Thione Seck bi àndalee guloo non andeegu ko nag. Ah. mais am naa yaakaar ci ni. Hmm. dina ko indi. parce que drapeau Thione Seck. waaw sama xol def ci sedd. Hmm. ndax euh, alaaji Cheikh Seck. mi jur Thione Seck. wax dëgg yàlla euh, sama père la woon doon officier de police bu yànji bu ma saan a wàcc ba sumi tënni policier bi toog buntu këram ñu génne fasu course yi fasu naaru góor yi. di ko si di ko sang mu toog dama ñëw di ko tooñ naan ko ah officier de police baa ngi nii de bi lay xam nga ne bàyyi ceen bokkaloo gaa yi ak sunu yaay nogay ma gaañu ndeysaan moom itam mais dama ne Ablaye Naar moom itam ak Njaga Caam yàlla Njaga Caam yàlla na ko yàlla yërëm ñooñu dama leen a xam mhm. dama la wax ni la euh, drapeau boobu ñu génne tey waroon na fekk euh, euh, euh, kañu ko tudde mhm. bu ko fekkoon nga xam ni kooku bokkul ak ñoom kooku woyam ind la woon rek buy taxaw moo tax waali mi nga xam ni moo jur waali mhm. waali yàlla na ko yàlla lafal cet man nag mosuñoo gisee mosuñoo toog waaye xam naa baayam ndax bi muy jàng way ànd ak njaayloo maa daan bëre mbappat noflaay baayam it déggal ñu doon xale bu am yar li wóote leer mooy coon yàlla na ko yàlla jégal mhm. yàlla na ko teeru ci yàlla teeru ci teppi àjjana ye mhm. yàlla na fekk ni mu bàyyam Seex Sekk ndax bàyyam Seex Sekk nit la woon koo xam ni kii ku gëm yàlla la mhm. ku jullite ku baax ku tabe loola la coon jël ci moom kon am naa yaakaar ci ne euh, ki nga xam ni kii mooy doom ji di waali loolu jël na ko ci moom parce que gis naa geste boobu ci waali ah <laughs> dégg naa ko tabe la dégg naan tey nit ku baax la man gisee wuñu mm. waaye toujours fu ma toogee maa ngi koy ñaanal yàlla. Mm. yàlla may ko jàmm jàmmal ko ak yaayam ak njaboot gi ak ñoom Ablaye Naar ak ñoom Khady Seck ñu mën ñu leen miinoo la parce que daaw ma jóg ci kër gi. Modou Lo Balla Gaye Boy Niang waaw Modou Lo la war a bëreel wala dafay toog xaar eh, Tafatine Bombardier wala Sa Thiès euh, Reug Reug lan la. ñooñu ñooñu Modou Lo fan ñëpp daal. Mm. à l'heure actuelle. bu ma sañoon. li ma jaaxal kay mooy li ñu ne combat Modou Lo bu ñu ah. doon ba dafa am téq-téq ma am yaakaar ci ne Modou xanaa du toog ay année tëdd bañ a bëre mhm. mais tey ci yoonu làmb waroon naa mën a bëre booy Niang mhm. mais Ama Balde la war a bëreel ba pare. Ama Balde ngi bëre Gris Bordeaux. ah yëg nga ni Ama dafa blessé. combat boobu amatul yëg naa ni dafa blessé au cours de ses entraînements. loolu mën naa arriver mbër mu nekk. mën loolu mën na arrivé mbër mu nekk. parce que dal na ma ci làmb. di bëri di di entraîner sama combat préparation. am ci blessure. mais damaa daal di toog mu tane. yàggul ma daal di ànd gën continuer sama entraînement. dem bëri daal. kon léegi Boy Niang fan la jëm. à l'heure actuelle Boy Niang xam naa ku ko yàlla booleel rek. ku ko yàlla booleel ku ko yàlla booleel rek. Mhm. ndax Boy Niang it il va pas reculer. Mhm. du seet yi nga xam ne ñii. Mhm. bëriwoon woon naa ñoom mu dellu di bëri ak ñoom. Boy Niang à l'heure actuelle dafa war a avancer. waaw kon yow d' accord combat ak Tapha Tine wala Lac de Guiers 2. Euh, Lac de Guiers mën na ñoo mën nañoo mën na bëri ak Lac de Guiers 2. Ah. ko combat boobu. mën naa ne. waaye su doon su fekkoon ne bii daal. Euh, Modou Lo nangu naa bëri moom. Ah. Modou lay bëri soog a bëri la dëgër de hmm. waaw lamb dafa am yoon. Hmm. Hmm. kon ne des euh, am naa ci yaakaar. Ah. parce que amul kenn koo xam ne kii. Euh, bëre nga lu Boy Niang bëre bëre nga bëre bu indi roi des arènes te Boy mënu ko. Ah, lan lan wax si Balla Gaye bi combat bi jeexee ñu ne dañ kaa sot mystiquement loolu ah gis nga loolu. non xam nga. buñ la safee mystiquement boo daanee kenn du ko wax. kenn du ko wax. boo daanee. Hmm. duñu ne mystique nga daane. dañ naan bëri la daane. Hmm. li ñu ko fay. Hmm. la ñu fay Boy Niang. lay xoole ba Boy Niang di ko dominer mystiquement. lan lay xoole ba Boy Niang di ko ëpp doole ci làmb ji. ma ne Balla bu bëggee làmb. na delluwaat takk ay godaasam entraîné la mu daan entraîné bu njëkk. mais gëw ma ce que loolu detti na mën a ne. gëmatoo yow daal gëmoo. gëw ma ne entraînement ba non gëm c'est-à-dire gëm naa Balla. Hmm. mais entraînement ba war ci moom laa gëmatu. ndax entraînement dafa métti de. Hmm. c'est par un entraînement intensif que l'on peut gagner ses combats ndax bëre nag bëri la tudd mais santoo mooy leen entraîner. Hmm. lu mu daan bëre rek bëri na ko ci Boy ñang taxul mu daan Boy ñang donc kon am na nuage bu fa ne. bu bëggee bëri na dem entraîner ji. démentraîné ji moo gën. mais à l'heure actuelle. man gëw ma ni entraînement ba woon ci moom. bi muy daan gaay gëmatuma ko ni mën na ko de. waaw ah, ndax dal na ma. dem naa ba entraînement yi ma daan entraîné. Mhm. wér na ma ni mënatuma ko. parce que lu ci nekk dangay xool say yaram ndax attan na ko wala déet. du question âgé. Mhm. mais dafa am yu bari yoo xam ni boo dee xool euh, ay protéines yoo daan naan. wala nga xool yoo xam ni daana la yokk doole ah, yooyu yëpp day percuté sa yaram ak choc yi ngay def gis man mais docteur seet nañ ma fu ne mais nañ ma amuloo benn feebar lii ci li choc yi amoon ci yow moo nekk ci ay problème mu la alors wax nañu ni may def ak ak matériel yi ñu ma jox entraînement ak euh, yu may naan loolu la coono rek la. mais li woote leer mooy. Mm-hmm. amul benn maladie boo xam ne mi ngi ci man maa ngi sant yàlla baax. Mm-hmm. di sant yàlla yéen tamit ak sëñ Babacar Si. lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo amateur ak la sopp euh, di ñaan ci kàttanu yàlla ak yonent ma doon wax naan yàlla ak yonent bi ak Cheikh Tidiane Serif fas Fass li ca Baxdaad Sadibou Nimzat Bamba sa Touba Limaamu Laay Yoff bu Kunta Njaasaan cheikh al umar futiyu taal ca Fuuta alaaji Malick ca Tiwaawan cheikh al islam ca Kawlax ñooñu ñoo féré Sénégal moo tax kon bokk Sénégal yëpp ku lim da ngay juum maa ngi nuyu sëñ Cheikh Tidiane mu sëñ Mansour si borom daare ji maa ngi lay nettali benn anecdote dama mas dem ci sëñ Mansour borom daara ji di ko papa naa bëgg nga ñaanal ma damay bëre ku mën a bëre te dama ko bëgg a daan te ku mu bëreel nga naaj te eh, Euh, bëggumaa dem ci ardo mu ne ma fu ardo ne mën na ko ci boori làmb ji ko gaañu moo lay faj mu ne ma doo fa jaar daal di ma jama xam ñu ngi bëgg a magee nag de papa Diom mbërka démb mii nga xam ni bii ñeenti ñeenti fan la am ci àdduna ñu lëmas ko cib sër indi ko ci kanamu sëñ Babacar si nga toog ma toog sëñ Babacar ñaanal ko ñu soog ko yóbbu tuddi ko ngénte ji ko tey moo taxaw fi naan ma maay bëri ci stade ba grand combat lu la bopp bi romb séentul génn moo tax sama baay boobu borom daare ji ah, yàlla na ko yàlla jéggal ci dara ji yonent bi ak mboolu mi jullit ndax alaaji Amat Seck Demba sama maam di sama nijaayu papa alaaji Amat Seck Demba ak Astu Seck mu mu mu wajuru jigéenu borom daara ñoo bokk ndey ak baay kon maa ngi nuyu Seydi Aboubacar di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may wér guddal fanam sëñ Muntaxa Mbàkke maa ngi koy ñaanal loolu moom itam yàlla ko yàlla may wér guddal fanam sëñ Bas sëñ Bas moom ci jëm boppam sama soppe boobu maa ngi koy nuyu ndax yàlla nee na yonent bi nee na sëñ Touba nee na du ci yokk virgule xalifa bi nee na du ci wàññi virgule di nuyu euh, Samba euh, Ahmadou Kara Mbacké moom itam maa ngi koy nuyu di nuyu sëñ Mamoun maa ngi koy nuyu di sëñ ab di nuyu sëñ Abdou Karim akaramu ahla ñoo ñëpp maa ngi leen di nuyu di nag Youssou Ndour en personne sama rakk jooju nga xam ni du ma dëkk maa ngi koy nuyu bu baax moom Mara Dieng ak Mbaye euh, euh, euh, Mbaye Gueye Faye kooku Mbaye Gueye Faye cinq cinq moomu bàyyam sama grand la woon di ma di ma tëggal bu masaana tëggal Mbaye Gueye maam góor ga pare day xëcc cool mi ne xaaral ma tëggal Pape fekk Ibou Ndiaye yéex a ñëw kon dama la wax ne la lépp loo xam ne maa ngi koy ñaan ci barke Mouhamadou Rasulullah yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ñoom salaam maa leen di nuyu di nuyu Moustapha Ndiaye Thierno Mbengue ñii ñëpp maa leen di nuyu ñoom Gowon njaay ñoo ñi nga xam ne wax dëgg yàlla maa ànd ak ñoom ci jeunesse ci làmb ñoom moo dëkkaraa nga xam ne booy Niang mii booy Niang ma ñu ko tuddee ma daan eh, ànd ak kooku it maa ko jàngaloon bëre moo tax booy Niang mii ko duppi bu jëlee ci turandoom dana naqare daan de. looy dénk dernière question looy dénk Balla Gaye 2 ak Boy Niang li ma leen di dénk Balla Gaye 2 ak booy Niang Balla Gaye la mu daan def ci entraînement yalla nako ban man bu ko continuer mën naa amaat ndam ci lamb ji waye batay tey gëwma ndax entraînement ba muy entraîner eh, ba tax eh. mu dellu si waat ne fam wara war a eh, waaw mu dellu si dana ma xawa a jaaxal waaye ba tey ngi koy ñaanal yalla yalla na yalla delloo si xelam parce que il n'a pas de mérite hein. booy ñaam mi ko daan da ko war daan reet da ko mën daan aussi mais li wóor leer mooy pour xel mi dellu si waat pour mu entraîner entraînement ba ci wat nee naa la ba tàyyi loolu dana xaw a dana xaw a jafe booy ñaan nag euh, dama ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale yàlla ko yàlla yokk succès parce que nag sama poulain la fii mbër yi ci Pikine muy amaa Baldé di Boy Niang di Eumeu seen ba ci ñoom jaga sama doom bi ak ñoom soxok yeneen mbër yëpp ku ma ci ko ku ci génne fii Pikine di bëre ji damay ñaan yàlla nga daan ndax samay poulain lañu wax dëgg yàlla hmm. kon nag booy ñaan daal maa ngi koy wax ni ko na yokk entrene am te bañ a gëmmentu te bañ a nelaw na entraîné bu baax a baax ndax am na lu koy xaar ba dëgg la daan na Balla Gaye mais ak seegul ba tey des na de te li mu des entraînement koy maye teel a tëdd teel a yeewu dem entraîné ji gën a fonk ay juróom gën a fonk ay ñaanam di sangatu bu baax nag parce que kat xar gu fuufa ku ko xet fuuf ni la fuuf kon booy ñang mhm. yàlla la yàlla jàppale ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di sant nag euh, di leen gërëb bu baax a baax nag di la gërëm yow mi nga xam ne mii yow doom nga rakk nga jarbaan nga nit ku baax nga ndax gis naa li ngay sonn ci làmb li ngay sonn ci làmb ji làmb ji mun la ko fay donc kon am si yëfi bopp moo la jël yal yàlla gën a yaatal sa yëf dara ji yeneen bi salaahu salaam maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen baalu àq di wax ni CNG bi yàlla na ko yàlla yàggal ñu yàggal defar euh, làmb ji bu baax a baax a baax ku ma ci tudd lit dama laa fàtt xel day fattu waaye li wóotalee daal boo ñang daal sunu poulain la mbër yi fii nekk ci biir Pikine sunuy poulain lañu li ma leen di sant daal dem leen entre ne ji ndax man kat xel ma ma daan daane gaa yi ngi fi de waaye doole day déplacé mhm. li wër sa leer mooy làmb boo gaañoo boo ci boo néewee doole kon par lab sa temps la euh, ab sa temps la boo xam ne bii guddul daal kon vaut mieux que ndax maa ngi ni bëri naa la ëpp soixante combat waaye mbëri léegi ku ci bëri vingt combat retraité ndax at la ñuy mhm. samedi dimanche mhm. ko sama mag jooju it yàlla na ko yàlla yërëm dara ji yéen bi salaahu salaam di nuyu ñëpp daal. jërëjëf euh, di wax nag. Mm. Euh, di nuyu sama président de la république euh, monsieur Macky Sall président de tous les sénégalais maa ngi koy baamtuwaat maa ngi koy nuyu bu baax moo soxnaam di leen sargal bu baax di nuyu Youssou Ndour bu baax di nuyu le maire Timbo bu baax. di muy nuyu waa pikin yëpp. di nuyu nag koo xam ne ki mënuma ko jàkk nu ñàkk bañ a nuyu muy Thierno Dom gis nga Thierno Ndom mi ngi jàppale gars yi ci biir di leen jàppale ci biti ba ci man mii kon dama lay wax ne la Thierno Ndom itam ku bëgg a Macky Sall ku bëgg soxnaam maa ngi koy ñaanal yàlla moom itam mu gën a mën a jàppale sportif fi Pikine yëpp jërëjëf. jërëjëf euh, Père Pape Diop lii lañ leen andiloon mbokk Iba Kane TV di leen jox rendez-vous beneen yoon. après combat Tapha Tine Bombardier. waaw dinañ ci ñëwaat waxtaan. exactement saa rëg-rëg bu jeexee. dañ ci ñëw waxtaan parce que il faut ñuy seeti le vieux pour gën a mun ko delloo parce que waxtaan ak moom dëgg la